xalif général de Mouride di ko ñaanal yàlla may ko mu àgg ci jàmm ñu ñëpp ak ànd ko ak moom may ko it yeneen naal mu sumb ko ak yeneen ak yeneen te yëpp ñu ànd ko ak moom ci barke Cheikh Khadim di nuyu di ziyaara boroom kër gi di jëwriñu Cheikh ab Lahad di Serigne Sidi di ko nuyu di ko ziyaara bu baax di nuyu itam mboolem jabootu Cheikh Abdou Lahad gi di leen sant bu baax di leen euh, jaajëfal ci coono yi nga xamante ni ñu ngi ci di sant it mbokk yi nga xam ne yëpp teew nañ lépp ngir euh, dund ak euh, fàttaliku jaar-jaar yi Cheikh Abdou muy jëmm joo xam ne dafa fees dell ak ay jàng ak i xam-xam ak i njariñ yoo xam ne képp koo xamante ni Eh, yaa ngi koy fekk nga jamonoom mbaa nga jamonoonte mbaa nga di déglu ay waxtaanam yoon wi nga xamante ni mooy yoonu siraatal mustaqim eh, dala ci jubal kon ñu ngi sant mbokk yi bu baax baax seen teewaay di sant itam eh, commission culturelle bi nga xamante ni ñoom ñoo amal lu mel nii ci jiital sëriñ Ablahat Jaxate nga xamante ni wàll gi ñoom ñoo koy taxawee ci ndigalul sëriñ Sidi di ko di leen sant bu baax leen gërëm di wax nit ne euh, li nga xamante ni moo ñu fi dajale day loo xamante ni euh, commission culturelle bi dañ ko baaxoo def at mu jot dañu tànn benn thème boo xamante ni dañ koy def ngir di ci teg ko ci kanamu euh, doomu aadama yi ngir ñu ci jàngat ndax xam nañ ne Sëriñ Abdou Lahad day koo xam ne dundam gépp njariñ kese la dundam gépp Euh, euh, njariñ kese la te képp koo xamante ni yaa ngi ko doon euh, teewlu te say problème day lijjanti ko ndax xam nañ ne jamono dafa baaxoo di am ay problème ay jafe-jafe yu mënta ñàkk ci àdduna jafe-jafe yooyu nag naka jekk Sëñ Abdou bu ñu seetloo bépp jafe-jafe bu bu am rek bu ñu dugloo wax Sëñ Abdou dañuy gis ne wax problème boobu Sëñ Abdou na ci solution niñ ko baaxoo at mu jot ñu tànn benn thème at yi at yi wees yëpp at mu nekk am nañ benn thème boo xamante ni dañ koy indi ci teg ci taabal bi tànn boroom xam-xam bu mag boo xamante nii dañu koy e, leeral e, jàngatal ñu ko firim fànce ñu ko ñëpp mën cee jariñu ñi nga xamante ni sama seen dégg-dégg àggu ci woon ñu mën koo xamaat ñi ñi fekkee woon xamaat ñi nga xam ne fekkoon itam jàngaat ci looloo tax nag Euh, ren ji itam loolu moo deesuwaat ñu tànnaat beneen thème boo xamante ni mu ngi jëm ci jàmm muy attache silmi bayna tawaif islamiya jàmmoo ci diggante ay kuréelu islaam bi loolu mooy thème bi nga xamante ni moom la ñu tànn di thème boo xam ne jamono soxla na ko jamono soxla na ko moo tax ñu te Sëñ Abdu ba mu tey wax booba ak léegi kenn xamul kañ la woon te booba yàgg na lool ndax Sëñ Abdou Lahad bim làqoo ak léegi rek mat na fanweeraat boobu ak léegi mat na fanweeraat te ba mu koy wax ak léegi ëpp na lool te fintoo nii lañ ko gën a soxla looloo tax nag ñu indiwaat ko muy régler ay solution yoo xamante ni ci lañu toll xam naa euh, te itam euh, ci loolu ñu tànnoon mbokk moo xam ne kenn du ko présenté war nañu naan taarif muy Serigne Sam Bousso mu nekk ci sama ndeyjoor koo xam ne du ku ñuy présenté moom la ñu bëgg àndal ci thème bi ngir mu jàngatal ko. asalaamaaleykum wa rahmatullaahi taala wa barakaatuh. di sant bu baax nag borom subhaanahu wa taala ci bokk ak yéen bu màgg benn bi ngir ñëwaat jariñu ak nafaraat kàddu yoo am solo ba muy riche na riche boo xam ne euh, daanaka mën nañ cee am jotaay bu yaatoo yaatoo yaatoo sëñ Abdou Lahad sax joxoon na ma yeneen waaye bi ma xoolee lii dama ne bii daal jàpp naa ne bu risque koo mën a weesu sax su fekkee ne benn jotaay moo tax kon damaa yem ci lii rek. tuxu ci benn situation dem ci beneen ku ne xam ne réew mu nekk ci wàllu boobu réew mu jafe la Sénégal yàlla mayoon na ko taw féex ak sutura ba soppiku bi fi doon am nekk soppiku am ci jàmm boo xam ne ci Afrique daanaka yi ko ci jiitu bariwul muy président bu dem beneen wuutu ko ci Afrique bu ñu xoolee coppiku googu bu fa doon am ci xeex lay amee wala coup d'état lay Sénégal nag am nañ ko ci jamono jooju ci jàmm waaye ku ne xam ne réew mi metti woon na réew mi jafe woon na réew mi jamono jooju laajoon na kilifa bu dëgër bu am gis-gis bu ñime bu mën a jël ay responsabilité kilifa boobu jamono jooju moo doon ci am laxam waaye xam nañ ne jamono ji ñu toll yi àgg nañ foofu ci jamono joo xam ne li fiy xew laaj na taxawaay bu ñu xoolee rek thème bii ñu tànn muy Tange Silmi ku ne xam na ne réew mi laaj na ko mooy nu naka la def ba ànd dund ci jàmm bennoo boole suñuy yéene suñuy pexe loolu réew mi laaj na ko kon mu mel ne discours bi dañoo nekkaat ci jamono juñ ko soxla soxlawaate kon nag dañ koy maanaam discours sëriñ bi leer na leer boo xam ne euh, leer na nañ xëy na kon danañ ci jaar taxaw ci ñetti ñetti tomb rek euh, mooy danañ tënkaat li mu wax ci gàttal waaye dinañ ñëw ci anam gi nga xam ne ni la waxe li mu bëgg a wax message bi ni mu ko jàllalee am naa ginnaaw suñu laxandoo mi ngi fi nga xam ne moom loolu lay jàngale <laughs> moom moom moo waroon a wala bu <laughs> lay jàngale <laughs> kon dinañ jéem a xool anam gi nga xam ne si amul laxat ñi la waxtaan nga xam ne tey bu ñu demoon ci barab yi nga xam ne dañuy jàngale communication jàngale discours lay lay tax mu jàll. mën naa ne discours bi war naa mën a nekk ci la ñuy sukkandiku pour jàngale nit ki boo bëggee wax ay nit bëgg wax yi am jeexit ci ñoom àgg la koy waxee loolu technique bu day waar la boo xam ne suñu laxat yàlla ak ak la ko cee mayoon ak may la amoon da nga gis ku ko jàng ba koy jàngale ca du mën a àgg ci wet fi nga xam ne fi la suñu laxat àggoon kon danañ ci jéem a génne tuuti rek ci wàllu boobu waaye nag li ñuy mujj mooy bind yi ci mën a jële ci waxtaan bi ci suñ jamono ji ñu toll kon bu ñëwee ci jëmmi wax yi yaakaar naa ne gis nañ gis nañ ne ñaari xaaj la discours bi juróom-ñeenti minute la waaye ñaari xaaj la xaaj bu njëkk bi mooy bi muy wax ak Senghor ak ñi mu àndal di tàggatoo moom beneen xaaj bi mooy bi mu wëlbatikoo di wax ak nag mbokki taaliba yi ak mbokki jullit yi waaye xaaj bu njëkk bi bu gàtt la ndax boo ko xoolee benn minute la ak fukki seconde li des ci wax ji muy juróom-ñetti minute yi ak juróom fukki seconde yi mooy wax ji nga xam ne moom la jëmee ci mbokki jullit yi bu ñëwee ci xaaj bu njëkk bi daanaka weesuwul nuyu président bi nuyu ñi mu àndal sant ko xamal ko ne yëg nañ ne yaa ngi tàggoo xamal ko ne ko réew mi gërëm na la waaye nag yow yaa leen war a gën a gërëm loolu lu am am solo la maanaam foofu mm, jottal na jottalil na réew mi seen gërëm waaye taxaw na laajal leen seen àq mooy réew mi dañoo am àq ci Senghor sant leen bu ñu ko santee benn Senghor war na leen sant ñetti yoon wala fukk nga xam ne kon kooku sant na Senghor waaye xamal na ko ne yow yaa amee réew mi ak cant mu wax lu tax muy ñetti mbir mooy ñoo ko fal waruñu ko ca far nañu ko ñett yooyu maanaam ñoo la fal ca far nañu la te waruñu la ndax bu fekkoon ne dañ laa fal ba noppi faruñu la mu ne ko sab liggéey du rafet su fekkoon ne dañ laa fal ba noppi wor la sëb liggéey yu àgg nga gis na kon wan na Senghor ne kat boo amee mérite it mérite bi da ko war a delloo ci waa réew mi ndax ñoom ñoo la fal ba noppi wëlbatiku jàppale la ba noppi waruñu la ginnaaw loolu mu kon laaj ñaan na ko ne ko yow kon na nga leen sant ginnaaw loolu mu sant ko ci taxawaayam ci lépp loo xam ne mos na koo soxla kon loolu la wax ak Senghor wëlbatiku nag balu ko ak ñaan ko nag mu may ko wax ak ñi nga xam ne ñooy bokki jullitam foofu yi buñ xoolee ni mu wooyee jullit ñi da cee fësalaale li leen boole da cee fësalaale li boole jullit yi yéen sama mbokki jullit yi nga xam ne ñoo bokk rasulullahi sallallahu alayhi wa sama mbokki jullit yi nga xam ne ñoo bokk yi nga xam ne ñoo ñoo tax jullit yi nga xam ne ñoo tax yàlla di wax ne walladina amanu wa amilu salaati wa amanu bi ma nuzila ala muhammadin wa huwa alxaqu min rabbihim kafara anhum sayyaatihim wa aslaha baalahum kon wax na leen fi liñ bokk mooy kaaba bi wax na leen liñ bokk mooy waaye ñoo bokk xibla ñoo bokk yonent bi bokk pas-pas bi nga xam ne lépp lu yëween moo ko yëweenal te mooy aaya bi nga xam ne moom la jublu kon xoolal ci biir nuyoo bi rek wane na fi jëm ak li mu bëgg a wax li nga xam ne moom la discours bi amul loolu am na lu muy teg ci balaa xam naa loolu suñu laaj bu ko leerloo woon dana ko leeral waaye danañ ci ñëw ci kanam ci ci ci ci ci mujj waxtaan bi kon ginnaaw bi mu leen santee ci ma màggal gi ak sant ci teertu bi da leen a yewe ñaanal leen ginnaaw loolu nag mu ñëw nag ci li ko tax a jóg dëgg dëgg dëgg muy wax ak jullit ñi ci xamal leen ne eh, dañoo war a booloo maanaam suñu borom moo bind ñëpp. waaye daa wëlbatiku ber jullit yi digal leen nag ñu nekk ñu nekk benn loolu yi da koo indil ay firnde ay dalil loolu yi ci li gën a ràññale waxtaan wi la bokk mooy Sëñ Abdou Lahad lu mu wax daf la koy indil dalil dalil ci alquran rawatina sax wala wax yu wax yu Sëñ Tuubaa radiyallaahu anhu gis nañ ne lu mu wax da koy indil firnde bi ne yàlla moo bind ñëpp indil na dalil bi yaa ayyuha alladina am yaa ayyuha nnaas inna xalaqnaakum min zakarin wa waaye yëmu ci indi dalil bi waaye li ci gën a yéemu day indi wajhul istidlaal maanaam dalil boo ko indee indi anam ga nga ca tegtaloo li tax mu ne yàlla dafa ber jullit ñi digal leen mooy ba muy wax moo bind ñëpp yaa ayyuha nnaas la wax waaye ba muy ber jullit ñi dana innamal muminuuna mooy nag innamal muminuuna ci yàlla mënoon naa wax innamal naasu waaye comme waxul innamal naasu innamal mu'minuun la wax kon mu xam ne di ndigal loolu moom jullit ñi la ko beral ginnaaw ba mu xam leen ne moo bind ñëpp waaye li ci gën a yéeme mooy maanaam ni mu firee bennoo gi nga xam ne fa aslihu bayna axawaykum jooju ni mu ko firee te mooy bokk leen yéene bokk leen pexe bokk leen ngeen am ndax fii ñu bare bari bennoo bu ñu koy wax day mel ni jëmm yi dañoo war a nekk benn waaye ni mu waxe bennoo gi mooy ñu bokk yéene bokk pexe bokk li ñu am loolu mooy innamal mu'minuuna ixwa ndax loolu moo war a dox diggante mbokk ak morom bi ca yàlla daf ñoo wax ne jullit ñi ay mbokk la kon fa aslihu jooju moom noonu la ko firee fa aslihu bayna axawaykum ji kon mooy na ngeen bokk li ngeen am bokk yéene bokk pexe lay liy gàllankoor ànd boobu it sëriñ bi junj na ko ci waxtaan wi te mooy li ñu yàlla la ca yàlla li ñu yàlla wax na inna sheytaana aduwwun lakum waaye mu teg ne it lañu suñ boroom digal ca loola muy fattaxizuuhu aduwwan léegi nag bi mu indee loolu nga xam ne mooy laltaayu dëgg-dëgg lim ñuy digal moom ndax dañoo fàttali lii ñu suñu boroom digal wëlbatiku nag ne kon lim ñuy digal mooy ñun ñëpp ñu maase doon benn waaye loolu it da koo indil lii tax ñu war a xam ne du lu mën a ñàkk maanaam benn boobu dafa doon lu mënta ñàkk maanaam indi na farata yi muy nekk di nekk farata waaye indi na daruura gi mooy nekk di nekk nécessité nécessité gi nekk gi mu ko nekk mooy li wax ne mbooloo moo gis la ñu sëq loolaay seen adduna bala nu ko mën a jariñoo ba te ñu takk ko new say mbaa du nu ko mën a jariñoo kon loolu moom lu mu teg la loo xam ne xel daf koy nangu xel da koy nangu ginnaaw ba ne yàlla digal nañu koo ba pare moom mu wëlbatiku di ñu digal ñu bennoo lam loolu la jiital ne mbooloo moo gis lañu ñu séq ba la ñu koo mën a jariñoo dañ koy takk new kon nga gis nii fii mooy ñu bennale suñuy mbir bu ñuy wax mbennoo loolu mooy tax mooy ñu bennale suñuy mbir mën nañoo wute ay xalaat wute ci ay melokaan wuute ci ay man-man waaye suñuy mbir yi ñu séq moom man nañ ko boole doonte wuute nañ ay bëgg-bëgg ca jamono nag loolu la laaj doone man li ma doon la ñëpp di doon doone man li may xalaat la ñëpp di xalaate waaye am na lu ñu séq ki ma wuteel ci li bëgg-bëgg wute ci xalaat yi liñ séq moom bala ñu koo mën a jariñoo dañ koo mën a dañ koo mën a def ndaw sañ foofu suñu laaj dafay indi ñeenti misaal ñeenti misaal waaye waaye misaal yi dafa yéeme njàngat mu rëy mën nañ ko cee misaal mu njëkk mi da koo misaal ci matt mi ci àll bi matt mi ci àll bi xam naa loolu ci bu may ñëw ci jàngat yi ñu ci mën a bind yi ñu ci mën a jële ñaareelu misaal mi mu misaal ko ci booba téléphone ku ne xam na ne téléphone direct nii amutoon ay jamono poste bi nga daan woote dëkk ba nga soxla ñu woote poste booba ñu doog laa jox ki nga mën a ki nga ki nga mën a jot mu indil ñu misaal ci ne boo boo xëyee fekk 8 heures jot poste boo mën a soxla boo wootee ci post bi ñu jox la ko ginnaaw bu mu jógee ci loolu mu misaal ko ci gaar saxaar yi ak gaar yi li ñuy sore sore sore gaar boo fu ak saxaar tarde wala mu avancé gaar yëpp danañ jot information boobu ku ñëw ñu mën la koo leeral misaal bi ci mujj mu jox ñi ko ci ONCAD di société boo xam ne moo daan toppatoo mbiru jiw mu ne saa boo leen téléphoné fu wu nekk catégorie maanaam qualité jiwu wa ak façon jiwu wa danañ la ko wax yooyu yépp nag conclusion bi mu ci tiré mooy lu ci nekk dañ koo nos def ko ne aw say tënk ko def ba maanaam organiser ko moo tax ñu man koo ñu man caa jariñu man caa man caa yi sa ñett yooyu yëpp bu mu ci wax bu nekk danaan ñooñu loolu lañ séq dañ koo yeew dañ koo takk li aw ak buum moo tax ñu man caa jariñu man caa jariñu kon ñeenti misaal yooyu buñ ko seetloo misaal mu njëkk bi mat énergie la énergie ku ne xam na ne jamono yi ñu toll problème énergie la wax ci senegal ak ressource matt mi kon dañ koy taal di ko jariñoo pétrole bi dañ koy jariñoo kon matt mi bala nga koo mën a jariñoo da koo boole ak buum takk ko mu ñëw ci kër gi boo ko boolewul dara du ci agsi ci kër gi kon day mel ni xëy na loolu ci jàngati la war a ñëw ressources yi ñu am it buñ ko organisé wu nos ko duñ ci jariñoo dara matt ko boo ko bàyyee ci àll ba keneen ni koy jaar jariñoo kon li ñu am it buñ ko organisé wu nos ko bu baax ñeneen a koy jariñoo boo ñëwee ci euh, téléphone bi mu ku ne xam na ne te mbirum téléphone mooy mbirum communication mbirum nouvelle technologie technologie jamono ji buñ ko organisé wu buñ ko nësu waxuma waxuma ñu jariñu ci waaye dañuy lor kon lu mat a lu mat a bàyyi xel na la ca des mooy mbirum transport réew bu doxee transport a koy transport bi buñ ko organisé wu nësu ko dara dara dara du dox ba ca mujj mooy entreprise kon baax na euh, nga gis misaal yooyu solo si am ci jamono ji ñu toll ci jamono ji toll muy mbirum énergie mbirum télécommunication mbirum mbirum euh, transport ak mbirum entreprise entreprise bu ñu ko nosul organiser ko kon mooy ñoo ñépp lañu séq dañ koo nos yeew ko boole def ko ne aw say moo tax ñu man caa jariñu ñoom waaye mooy tax ñu man caa man caa jariñe kon lay mel ne misaal yi indi yëpp am na lu ñu wax istiqra indiction maanaam mooy nga indi ay misaal génn ci ab conclusion si la dafa indi misaal yu bari yoo xam ne ñoo bokk lenn lam cay tiiree lenn la kon loolee mu jële ci conclusion boo xam ne kon nun jullit ñi li ñu seq mooy réew mi ak diine kon ñële la ñu nañ ko def ñun ñi yor diine ak réew mi bu ñu ko deful noonu duñ ci jariñu duñ ci jariñu nga xam ne misaal yi day doon misaal yoo xam ne daf lay jege nga di ko dund mu doon loo xam ne danga koy mën a jàpp moom mën ci sa xel ginnaaw kon ba mu ñu xamalee ne kon be boole suñuy mbir nos ko mënta ñàkk ngir ñu man cee jariñu man cee jariñu ci kon suñ diine ji ak suñ adduna ji bu ñu ko defut noonu duñ ci jariñu duñ ci jariñe lay tax ànd boobee am bennoo boobee am loola it moom moom la moom la ca teg muy condition yay tax mën a am mooy lañu suñ borom digal ci ñuy dimbalante ci lu baax ca bañ a dimbalante ci ab safaan moo tax mu teg ca ne wa taawanoo alal birri wa taqwa wala taawanoo alal ismi wal udwaan mooy loolee la ñu yàlla digal ñu sàmmoonteeg moom ba tax li ñu bëgg ñu man ko am waaye loolee bu ñu ko defee wax na ñett yim ñuy jural nekk na ñett yooyu it benn bu nekk indil na ko dalil ci alquran te mooy cofe cofeelu suñu borom ak garanti suñ borom ak suñu borom dox suñu diggante ak saytaane cofeelu suñu borom indil na ko dalil bi. inna allaha yuhibbu allazina yuqaatiluuna fi sabili saffan ka annahum bunyaanun marsuus mooy mahabba bi bamaan bi mooy wala yajal allahu lil kaafirina ala al mu'minina sabila ca lenn bu nekk dafa koy firi bu leer génne anam gi nga xam ne ci la ciy tegtaloo gis nga bi muy wax lan ji ni mu firee lan ji lan araf dàq la loo xam ne luñ ca dàq du dellu seeti ku ne xam ne naf mustaqbal la dàq dàq lu jublu si bi nga xam ne mooy wane ne day dox suñ diggante ak seytaane mooy inna ibaadi laysa laka alayhim sultaan illa man ittabaaka min alxaawiin foofu yi li mu fi wax mooy ku génnul ku génnul ci maanaam mbooloon jullit ñi ku ku ku ku jàddul nekk ci biir li de suñu boroom subhaanahu wa taala digal da nga mucc ci seytaane yooyu yëpp kon muy muy muy muy yi nga xam ne suñu laxat leeral na ne bu ñu nekkee benn def lu ñu suñu borom subhanahu wa taala digal muy dimbalante ci lu baax bañ a dimbalante ci safaan danañu jural ñett yooyu muy joxeelu suñu borom ak garanti suñu borom ak dox suñu diggante ak seytaan waaye nag kon mu indi nag lu ama am solo luy mën a sàmm ànd bi ndax ku ne xam na ne nit ñi nekk ci réew mi di ay jullit am nañ ak am nañ ci yu ñu wuute waaye mu xamal nañu wuute boobu ñu wuute li ñu boole mu ëpp ndax nañ fàttaliku ne ba muy një ba muy ubbi ñun jullit ñi nga xam ne ñoo bokk baytullaahil xaraam ñoo bokk rasulullah sallallahu alayhi ñoo ko ñoo bokk pas-pas loolu la jiital kon ci biir jullit ñi am na nag ay kuréel yu ci nekk muritan ci xaadiran ci tijaanan ci ñooñu nag wax na dëgg-dëgg li leen boole ba ñu war a sàmm li nga xam ne moo leen boole wan nañu li leen wuutale li leen boole moom ëpp doole xam nga misaal bi ñu ko misaal ci ay mbokk yoo xam ne ñoo bokk ndey ak baay ba noppi wuute ci ay couleur der melokaan kii xees kii ñuul kii xeereer ku ne xam na ne bokk ndey ak bàyyi yi moo ëpp doole fuuf wuute gi nga wuuteeg nit ki ci couleur kon nit ki bu ngeen bokkee ndey ak baay waroo ne dafa xees ma ñuul kon maa ko gën wala baaxul wala waruñoo mën a ànd day war a xees ne man wala muy mën a ñuul ne man wala mën a xeereer ne man kon sëñ am la xar radiyallaahu anhu misaal bu ama am solo la ñu misaal foofu ne kenn ci ñoom wër mën mënta wëlbatiku tam moroomam ba noppi ca du tam boppam loolu yaakaar naa ne dafa mel ne xanaa dañoo fàtte wax yooyu te mu wax ko ci anam bu leer a leer kon ku bëgg a wëlbatiku sa mbokkum jullit moo xam ne bokku leen tariixa nga di ko daal nga di ko ayibal xanaa fàtte nga kon gis ñëpp la wax leen li wax ne yéen bokk ndey ak baay benn biir moo leen jur waaw loolu yaakaar naa ne lu ama am solo la mooy jullit yi li leen boole moo gën a dëgër mooy ñoo bokk lislaam bi ci biir lislaam bi nag mu am ay kër wala ak i tool tool mu ngi mel ne kon ñu bokk ndey bàyyi wuute ci ay wuute ci ay couleur mu ne ku ne xam na ne loolu nii mu ko waxee du tee muy am mais bu amee lan lañu war a def lan moo war a doon suñu attitude bu ñu demee ba gis ab murit buy wax ci tijaan lu warul wala tijaan buy wax ci li murit lu warul wala xaadir buy wax ci tijaan murit lu warul lan lañ war a def suñu laa ne nañ def ni li ñu yàlla digal rek fa aari na anum xatta yaxuudu fi xadis wala kon koo gis muy wax loola ba ko fa wan ko ginnaaw waaye li gën a doy waar suñu jamono yii mooy ñun loola la ñuy gën a partagé fi toujours damay wax boo dugaloon suñu am laxaat muy wax wax yu am solo suñu laxaat lu bu ko dugalee dana am ci internet bi un an boo ko gisee quatre cent vues lay am di jàmbaar waaye bu ñu gisee woon ku saaga tey bu ñu ko dugalee deux heures de temps nga koy xool ñu ne la quatre mille vues am na ko nangami partage am na ko kon mel nit ñi wax ju wax ju wax ju wax waxi wax yuy ayibal dafa mel ne da leen a gën a neex ba leen a sax loolu moom war nañoo seetaat suñ bopp war nañoo seet lu baax daana daanaka ki gis wax ju baax mu partagé ko lu néew lay doon waaye waxi safaan moom moom ci saase ngay gis partagé ku ne ñu yónnee ko ku ne yónnee ko waaw daanaka boo gisee ab ojo buñ la yónnee wala ab kii rek bay boo maanaam léeg sa fit day daw ndax da ngay xam ne du du lu ginnaaw bi mu waxtaanee jullit ñépp nag digal leen ni ñu war a def dafa wëlbatiku nag ci murit yi ndax ku ne xam na ne ca loolu mooy moom def na li mu war a def wax ak jullit ñëpp wëlbatiku wax ak njabootam mu mel ne kon kilifa ku nekk noonu nga war a def boo dénkee jullit yi laabiire leen da ngay wëlbatiku nag jox ndigal sa moom nag noonu la def dafa wëlbatiku nag ne wax nag ci mbirum Sëriñ ko ñi nga xam ne ñi ngi wax ci sëriñ bi loo xam ne warul mu wax ne waruñoo naqari loolu yaakaar naa soxla nañ ko lool ci jamono ji ñu toll. ngir bu ñu ko deful lii sëñ laxat wax ci jamono yi jub bi gu ak internet nga xam ne nit day toog fa mu toog cib saalam ab aw tur ab ab photo def ca wax wax lu ko neex loolu su fekkee ne déggoo wax li laa di ci xol bu tàng ngay dëkk ci mer ngay dëkk te bis boo gisee xam kooka boo moytuwul yow dana la jaral nga dee ci kaso waaye sëñ laxat li ñu jàngal foofu xamal nañu kii wax ci sëñ bi moom jërta naqarlu ndax ñaar rek koy war koo xam ne xetuk sëñ bi xëy ko xamul sëñ bi wala koo xam ne ni yàlla def sëñ bi neexu ko ca ñaar yooyu dara mu cee naqarlu ndax yow xoolal diggante sëñ bi ak li ko suñu borom defal nga xam ne foofu dane contrat bi nga xam ne moo dox suñu diggan diggante yàlla ak Sëriñ Tuubaa contrat bu fermé ku ne xam ne ne am na contrat yu ñuy négocier am na contrat yu ñuy renoncer am na contrat yoo xam ne dañ ko danañ ca deltu ginnaaw waaye contra bi moom bu fermé la contrat boo xam ne suñu borom signé na ko sëriñ bi ca jeex na dootu deltu ginnaaw loola mu misaal wax ko ci wax ju leer lii kaana rabbi wa nabiyu kaana lii bi maa maha aybi wa sirri saana lii darajati taalo wa laysa tanxafid oman a min al wara xafdi xufid kon li yàlla defal sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu koo xam ne yàlla da koo nekkal yonent bi nekkal ko ci nekkal goo xam ne dañuy far ay ayibam di ñoŋal ay mbóotam ba noppi mu wax ne darajaam day kawe faw c'est képp ku bëgg a suufeel darajaam yaay suufeel kon loolu day na tontu yow xamal ne képp ku jëmale fekk ne gëm nga li sëriñ bi wax kuy wax ci moom dara waru laa naqari ndax da xam ne kooka boppam kuy naan posen la boppam lay tooñ boppam lay lor ndax lii yàlla wa naha xaf di xufi kon loolu nit ki yow koo gis kon da nga koy yërëm sax ba mu jógee ci nag dafa ñëw ci biir boppam moom fan la nekk waxin ko wax ko waxin leer woo xam ne dane nag maane te mu ne maane moom ko waxee rek doon dara kon mu wax ci mbiram mbiri boppam lu leer ci ne moom Serigne Touba rek la fi nekkal Serigne Touba rek la fi nekkal jox na ko léppam jox na ko dundam jox na ko deem jox na ko dalaam jox na ko yëngutoom kàddu yooyu la wax damay wax ay kàddoom nee na ndax noonu la Serigne Touba defoon ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam da ko joxoon léppam indi wax ja sëriñ bi waxoon ne billahi lazi la ilaha illa huwa xayaati wa mamaati wa xarakaati wa sakanaati maa sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ni yonent bi defoon ni sëriñ Touba defoon ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam jox ko léppam si sëriñ Abdul Ahad nee na noonu la def sëriñ Touba jox ko jox ko léppam nee moo tax fam nekkoon rek lay nekk ca lam nekkoon rek ca lay nekk mu mel ne nañ koo laaj sëñ bi ci lu mu nekkoon mu ne sëñ bi lam fi nekk woon mooy di ñaanal jullit yi di ñaanal jullit yi di leen ñaanal yërmande di leen di leen di leen di leen yërëm di leen di leen mu indi mu indi ñaan yooyu nga xam ne sëñ Tuubaa daan na ko ñaanal jullit yépp bokk na ca li mu wax ne xut ummatal Mustafa an kulli mafsadati wal tarhamil xalqa yaa man jàddam badaa ak bay ba muy wax yaa maalikal mulki yaa man jalla am qawadin irham jamial wara ya hadiya dara nga xam ne bii da ciy ñaanal xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa yàlla aar leen ci gépp yàq waaye mu yërëm mbindeef yi beneen bay bi da ciy ñaanal yërmande mbindeef yépp foofu nag si ñëpp laxat def fi déclaration bu leer a leer wane ne moom bu amul darajay laaj nga xam ne tawaadu bi mu jëfandikoo foofu bu amul daraja yi laaj yàlla yërëm yërëm jaam ñi dana am fulla yi wax képp koo xam ne dana yërëm yërëm mbindeef yi dana jëflanteeg moom kuy yërëm mbindeef yi di leen dimbale nee na moom dana jëflanteeg yow dina wax ak yow képp koo xam nag yërëmut nit ñi dimbalewu leen du seq ak kon moom leeral na fi mu nekk mooy nekkal fi Serigne Touba xamal nañu ci biir wax ji Serigne Touba lu mu fi nekk woon mooy yërëm mbindeef yi ak dimbali leen ak di leen ñaan yërëm na suñu borom subhanahu wa taala kon mooma moom la nekk mën nañu loolu moo nekk ci discours bi yu fés ci tomb yu fés ku ne xam ne nag discours moom discours bu leer la boo xam ne xëy na dama ko tasaat noonu waaye li wax ñëpp déggoon nañ ko kon ñun liñ ciy teg rek mooy ñaari mbir benn mbir bi ñu xool ni ma ko waxee woon sëriñ bi li nga xam ne mën nañ koo tuddee maanaam maanaam man xëy na xëy na xëy na méthode communication wala li nga xam ne la ñu tuddee ay procédé yi nga xam ne jëfandikoo na ko ci biir ndax ak may la moom bu ko yàlla mayoon ba nga xam ne li mu bëgg a wax. bu ko waxee ñëpp dégg bu koy wax ñëpp danañ ko déglu ci danañ ko dégg jàpp naa ne ñu fàttali ko ay waxtaanam événement la doon doon maanaam discours si ñëpp laxat fu ñu ko doon tegee ci rajo bi maanaam comme bu bu ma ko doon mën a misaal bu mat amee walla làmb am ni nit ñi naan tekk bu suñu laat daan wax noonu la jamono ji daan mel ñu doon romb ab rajo sax dañuy taxaw day mel ni dafa am lu leen di attiré bu suñu laat xasee tàmbale asalaamaaleykum day mel ne dara dootu mën a demati boo ko xasee di déglu it munoo wax munoo def dara ci daaneelut dafa mel ne day li tubaab di wax haleine sa haleine lay téye maanaam sa nafas daf koy téye maanaam ba nga xam ne dafa mel ne da koy jàpp ba ngay dangay ànd ak moom dangay ànd ak moom ba ba muy daaneel loolu suñ borom defaloon na ko ko kon dañuy wane dara ci loo xam ne wàllu méthode bi nga xam ne feeñ gis nañ ko ci discours bi xutba bi liñ gën a gis mooy li ci gën a ràññ yéeme ci waxi sëñ Blaat ci ci discours am yépp nag mooy plan bu plan bi muy am xutta lay am bu leer boo xam day am fu tàmbalee am fu mu am daaneel nga xam ne day ay am ubbi am développement ak conclusion maanaam waxam waxam waxam noonu lay wax noonu lay mel nga xam ne plan lay am bu leer a leer a leer a ñaareel ba da gis ci biir xutba bi ni muy tàmbalee minal umum ilal xusuus day tànk maanaam wax ji day mel ne ni pyramide pyramide maanaam wala musallas boo juutal day tàmbali di yaatal maanaam lu nekk la ca kaw moo koy gën a yaatu maanaam wax ji boo ko xoolee noonu la tëdd maanaam day tàmbalee ci lu gën a général di gën a ñëw ci particulier buñ ko seetloo mbooleem jullit ñi la waxal moom la tàmbalee yéen mbokk jullit yi nga xam ne ñoo bokk foofu tari ki nekk ci tariixa mi ngi ci ki nekkul ci tariixa mi ngi ci kum ci jullit yaa ngi ci biir yéen mbokki jullit nga gis kon ñaar tudd na fa ñaar mooy mbokkoo gi nga xam ne ñëpp ay bokk lañ ah, jullit gi ñu doon jullit kon tàmbali na wax ak jullit ñëpp jóge ci jullit ñi wax ci tariixa yi ñi ci biir jullit ñi ci biir lislaam ji muy tariixa bi mu jógee ci umumul muslimin dafa ñëw ci wax ak ñi nekk ci biir tarixa yi loolu jullit yi moo gën a yaatu biir tarixa yi biir tarixa yi mu ñëw ci sëñ bi nga xam ne sëñ bi dugg na ci biir tarixa yi biir sëñ bi mu ñëw ci boppam nga xam ne minal umum la def ilal xusuus ci jullit ñi ñëw ci tarixa yi jóge ci tarixa yi ñëw ci murid yi seen bopp man ñëw ci sëñ bi jóge ci sëñ bi ñëw ci boppam nga xam ne kon da koo tàmbalee ca kaw di wàcc si di wàcc si ba ci jëmmi bopp loolu lu feeñ ci waxtaan wi la ñaareel bi ñetteel bi nga xam ne feeñ na ci waxtaan wi mooy idée yi muy indi yëpp dañu di ay afkaar idée bu mu indi dana ko indil dalil rawatina naq lii dalil boo xam ne ci alxuraan lay doon wala waxi sëriñ bi radiyallahu anhu lu mu indi rek indil na ko firnde loolu méthode la am na ñoo xam dañuy wax ba daaneel ca doo ca dégg benn dalil cës laa cee la wax waaye moom loolu maanaam mooy bokk na ci ndax koo xam ne yow boo doon wax kenn du la laaj luy sa dalil boo waxee rek gëm nañ ko jàpp nañ waaye day bàyyi xel ni ñëpp lay wax moo tax lu mu wax rek danga cay teg day wax fa mu nekk ci alxuraan nga teg ca sa baara fi ne discours bi li muy gàtt gàtt juróom-ñetti aaya mi ngi ci ñeenti bayit mi ngi ci ak benn nas boo xam ne wesaar la ca juróom-ñeenti juróom-ñetti minute ci juróom-ñetti minute yi nga xam ne kon ni mu fonke woon ni mu fonke woon joxe joxe joxe dalil boo xam ne mooy tegtal boo xam ne mooy dëgëral li muy wax ba ca topp mooy ni muy indee dalil lay indee ay misaal yuy leeral li mu bëgg wax muy illustration ku ne xam na ne wax lu ci am solo la nit ki boo koy wax ay maanaay kese ak i af ay idée kese li muy gën a mën a jàpp mooy lu concret loo xam ne da da day day day jël xayaalam da day daal di tàmbalee imaginer loola waaw ni mu waxee ne ñenn ñu nekk lañ bokk mooy seen adduna buñ ko deful ni aw say nekk buum duñ ko mën a jariñoo duñ ko mën a jariñ loolu ab idée mu indi nag ay illustration maanaam ay luy leeral idée boobu ci ay misaal misaal ko ci matt mi ci àll bi nga xam ne dafa tasaaroo bur nga mën cee jariñu da nga koo nas ba mu aw ma mel ne aw say loolay boole ga nga koy boole maanaam ba nga xam ne dalay may doole gis nga ni mu ko misaale ci ne aw say wu wu rëy woo xam ne foo ne ko cirib bu fa bunt waree ubbi ko ubbi ko nga xam ne kon bennoo moo lay may doole ba loo bëgg nga man ko kon misaal yooyu daf koy indi ci wax ji day jegeel xalaat yi maanaam idée bi muy indi da koy da koy da koy da koy jegeel ba nit ki man koo nit ki man koo dégg ni muy indee ay misaal it noonu la ci tirer ay conclusion maanaam da ciy istinbaat maanaam day indi ay adilla bu indi ay adilla indi ay misaal ci biir misaal yi da ci da ciy da ciy istinbaat man da ciy ballulu idée boo xam ne mënoo koo ñàkk a nangu maanaam nga xam ne daf lay daf lay téye maanaam ba wax ji moom dafay am logique boo xam ne yow wax ji bu daanee rek mënoo koo ñàkk nangu waaw dalay jël benn benn jàpp ci sa loxo jàpp ci sa loxo jàpp loxo ba bu nee la ba bu la bu la joxee lim la bëgg a wax rek mënutoo koo mënutoo koo ñàkk nam kon loolu lenn nañ ci wàllu méthode méthode bi nga xam ne si Abdou Lahad jëfandikoo na ko ci discours bi geneen wàll gi mooy ay asalib li ñu wax li ñu mën a tudde ay procédé yoo xam ne maanaam ci ci ci anam yoo xam ne day tax ki lay déglu maanaam li ngay wax gën a gën koo dugg mu gën koo mën a téye mu gën a mën a jeexital ci moom yooyu bokk na ca waxi si Abdou laxat ci discours bi li ñuy wax muraat muqtadal xaal maanaam lenn lu nekk lu fu nekk lam fa war a wax la fay wax maanaam ku nekk lam war a wax ak yow day wax ak yow buy seetloo bi muy wax ak Senghor lu mu wax président maa ngi lay nuyu Senghor président ci anam boobu la fa ñëwee ca loola la yam président maa ngi lay nuyu ba mu jógee ci président bay wax ak jullit yi lu mu wax nga ne ko baal ma ak ma wax ak sama mbokk jullit yi foofa lu mu tàmbalee asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu kee moom maa ngi lay nuyu la ba jeexal xam nga liñ miin mooy bu may tàmbali rek laay wax asalaamaaleykum ñëpp dugg ci waaye gis nga moom sew sew boobu bi muy wax ak jullit la wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ba muy wax ak Senghor dana ko président maa ngi lay nuyu di nuyu ñi nga àndal kon loolu mooy borom ak moqtal al xaal bu ñu seetloo buy wax ak jullit yépp waxin wa muy wax waxinu conseil lay doon ku leen di laabiire boole ci boppam ba mu waxee ba dañoo war a bennoo dane loolu mooy li nu war a def loolu mooy li wér moom lan war a def loolu mooy li wér moom lan war def boobu jullit yépp lay wax nekk ci biir ba mu demee bay wax ak murit dana leen li ma leen ciy sant mooy yéen murit li ma leen di digal nga xam ne jullit yi moom day day wax ñun ñëpp li ñu war def mel ni ku leen di laa biire nasiha buy waxal nag ñi nga xam ne moo leen yilif doon da leen jox digal li ma leen ci sant mooy nga xam ne kon loolu mooy muraat muqtada alham ñaareel bi mooy baraatul istihlaal waxoon naa ko sànq maanaam ubbi bu rafet ci balaa nga dañuy wax mooy boo ubbee rek ñu xam fi nga jëm boo ubbee ci nuyoo bi rek ci ci ñuy xam ci li nga war a wax loolu feeñ na ci wax ji ndax bi mu ne yéen bokki jullit yi nga xam ne noo bokk rasulullah sallallahu alayhi yéen mbokk jullit yi nga xam ne noo bokk baytillahi xaram yéen mbokk jullit yi nga xam ne noo tax yàllay wax wallazina amanu wa amilu salaat dañuy daal di xam ngir ñëw jullit yi lay waxal ca la ko intérêt la ko yitteel ca wax ja mooy ñu bennoo ndax dafa insiste ci li ñu bokk ah gis bu ñuy bu ñuy bu ñuy xutba ci ab sëy alhamdulillahi lazi ahalla nikah wa harrama sifa nga xam ne ci mbiru sëy la ñuy wax waaye moom bi mu ñëwee wax yéen bokk ji ñi wax wax wax la ñu boole nga xam ne ci tàmbali bi rek dañuy daal di xam ci waxtaan bi jëm te loolu day tax day tax nit ki teel la ànd ak yow ci li ngay wax ndax day daal di bàyyi xel ne ci fii ngay jëm mu ànd ak yow foofu am na ñoo xam ne buñ commencé wax dinañ wax lu bëree bëri ca doo xamagun fan lañ jëm waaw dañ wax lu bëri ca doo xamagun fan lañ jëm moom nag ci lu yóbbi rek ci nga xam ne kon loolu mooy baraamatul istilaam waaye bokk na ci yi rafet ci wax ji ci ci mooy xusnul intiqaal maanaam booy jóge ciy wax di dem ci jeneen wax noonu mu doon tàmbalee wax umawul muslimin ñëw ci biir tariixa yi jóge ci ñëw ci sëriñ bi mu ne ñëw ci boppam bu ci nekk dana indi uslub wala ay ibaaraat yoo xam ne day tax attirer attention ki koy dégg mu xam ne am na lum jeexal di am ci leneen lu muy dem